waa ni ma ko gisee mooy euh, am solo bu jigéen am solo ci société bi rek looloo waral yooyu ñuy sargal jigéen ñi chaque année di ko def ci 8 mars bi loolu àdduna wërngal këpp ñëpp xam nañu ko waaw ma ci ziar ñëpp nag taxawaayu jigéen moom am na solo lool waa macha allah am na solo lool ndax léegi lu góor di def rek jigéen mi ngi koy def comme liggéey lu jëm ci liggéey xeetu liggéey boo gis euh, góor di ko def rek léegi jigen mu ngi ci yëngu di nga togg di nga yek sax waye nak euh, di nga golu bay war ci société bi wane ne lu gor mën rek jigen mën nako so fa jógee nak bo yeggee sa kër mom da ngay ko tamit nek tak sa borom kër bop parce que jigen ñi léegi ñomit euh, ma sha allah jappalé borom kër yi ci kër gi xalé yi ma sha allah ñu ci gor gor dal bu baax. soxna yi sha allah ay battante lañu. fajar gi boo jógee yaak ñoom yéenay daje ci ci circulation bi ñoom tam ñi bay seen waar kàddu yu mujj mooy di sargal sama mbokku jigéen ñëpp di leen ñaanal euh, macha allah une bon fête sama borom kër di ko sargal di ko gërëm di ko ñaanal bu baax a baax a baax ndaxte ñun jigéen mënuñu dara suñu borom kër yi ñoo ñuy épaulé di ñu jàppale vraiment di ko di ko ñaanal mu si ci maa ngi koy ñaanal bu baax a baax Euh, bes bi ñu jagleel mom suñu bes la mom, suñu bes la 8 mars bi mom suñu bes la waaw na ñun ñu ngi jappalé suñu kër gi bu baaxa baaxa baax di jappalé suñu xalé yi école bi bayiwuñ dara. kom nga japp ma japp nga topato sa njaboot topato sa jëkkër topato dal sa kër sa dara bu mu kii ñun ñun dal ñun jigéen ñu ngi daan suñu doole chaque jour di dugg ci marché bi di ki di daan suñu doole dal waa la yo sama kër. parce que sama jëkkër day jàpp ma jàpp sama goro jàpp ñun ñëpp daal ñun ñooy jàpp daal waaw kër gi daal jàppal ma jàpp la ki day jàpp fii kii jàpp fii macha allah Kaolack moom jigéen ñi ma fi gis moom daankati doole la ñee ngi jaay café ñee ngi jaay jus ñee ngi jaay ay caaf ak lépp ñu ngi jàppale seen jëkkër yi vraiment macha allah macha allah moom laa fi gis daal. yeneen soxna yi na de wax dëgg neex yàlla xëy na loolu seen xalaat la mais du lu baax daal du lu jëmal euh, réew kanam daal. ma di leen wax naan leen euh, ñuy góorgóorlu rek bañ di def loo xamante ne naka sudul noonu la di daan seen doole man damaa gis euh, nit euh, boo amee sax ñaar dërëm war ko mën a dem def juróomi dërëm man loolu laa gis daal waaw. 8 mars bi nag dañ cee kontaan rek fekke woon nañ ko daal fekkee ko ren yal nañ ko fekkee fekkee fekkee te ànd ak tal te buñ talee yal nañ wér jigéen ñi moom jàmbaar lañ ci wàllu liggéey moom jàmbaar lañ trop trop trop leen di ñaanal fan gudd te ànd ak 8 mars moom kontaan nañ ci jigéen ñi Saalum ñoom ñu ngi yëngu ci clémentine bi ak xaal ji ak mango ji ak lu génn daal ñoo ñu ngi ci moom tëdduñu benn yoon tooguñu benn yoon bu ñu yàlla may wér daal saa bu ñu xëyee ñi ñëw daan suñu doole ku ñu dimbale nag ñu jël njaay mu doxul na mu war a doxee waaw nag na mu war a doxee moom doxu ko ku ñu dimbale nag ñu jël ñu ngi ñaan dimbal soxla nañ financement soxla ñu jaay ñun ñuy jënd waaye yooyu yëpp dara moo ci doxal daal financement te jàppale ñu nañ ñu war a jàppale moom jàppale moom féete na côté moom ah xanaa ñaanal ko rek ñu ngi ko ñaanal daal yàlla rafetal lépp te ma ànd ak dal ah yàlla may ko wér wér gum ko gérer te mu jàppale jigéen ñi ndax jigéen ñi seetaanuñ ko benn yoon bu mu ñëwoon stade ba mu ñëw keroog xam nañ jigéen ñi seetaanuñ ko moom moom leer na ko nañ ñoom tam ñu ngi leen di ñaanal ndax bu leen neexoon tam ñu ne ñun tam duñu dem fenn luñ ñoom lu ñu am dañ ci yem bu ñuy sombi nañ sombi bu ñuy naan ndox ñu naan ndox waaye terew ñu ngi ñuy bàyyi ñun tam ñuy daan suñ doole ñun tam lu ñu am suñ demee duñ leen ko soxla duñ ko soxla njaboot gi